Euh, téléspectateur public TV mbégte la am saa su nekk ak contentement di jàkkaaloo ak yéen euh, tey nag ma seet ki nga xamante ni mooy Amadou Makhtar Kanté ñu gën ko xam ci imam Kanté nekk tamit écrivain moom laa seet si tey fii euh, wax naa leen lépp loo xamante ne xew na rek damay dem seeti nit bi nga xamante ne xam-xam màcc na ci loolu ba tax na tey jii ma seet ki nga xamante ne mooy imam Kanté ma bàyyi ko mu nuyoo ki yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi koy sitaan imam maa ngi lay nuyu alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah maa ngi lay delloo sa fay soxna si di nuyu équipe bu Public TV yëpp di nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi topp euh, émission bi moo xam ñu ngi toppee Sénégal moo xam bitim réew. Mm-hmm. Imaam dañuy tàmbalee ci li nga xamante ne mooy écriture maanaam yow écrivain nga lan moo dugal ci loolu ak ban livre nga xamante ne moo nga mujjee dugal euh, fii ci réseau yi. waaw euh, livre bi laa mujjee génne. Mm-hmm. de quoi Jésus fils de Marie est-il le signe. Mm-hmm. mu nekk benn enquête boo xam ni dama ko def diggante Bible ak Alquran. ci lan mooy wàccuwaayu ak taxawaayu Jésus fils de Marie mooy Isa dañ koy wax ci alquran Isa ibn Mariam mm-hmm. euh, ma gëstu ci daanaka gën jaa néew juróomi at mm-hmm. toogaat at pour bind ko mm-hmm. te mu nekk téere boo xam ne dafa concerné monde bi yëpp daanaka parce que kii di juif kii di chrétien kii di musulman euh, am na lu téere bi di wax ak yow euh, ci tënk dama ci feeñal ni ba ma gëstoo bu baax bible gëstu alquran rawatina alquran nga xam ni moom laa gën a jekku dama gis ne Isa ibnu Maryam li mu ñàkk bàyyi mm. du loo xam ni lu doy waar la doy waar la loo xam ne dañ naan kumpa bu ci kenn wax mm-hmm. waaye dama gis ne li mu ñàkk bàyyi borom bi dafa bëggoon wane mm-hmm. ni nubuwa nekk yonent bi mu diggoon yonent yàlla Ibrahima muy jaar ci geño bàyyi mm-hmm. bi ko yàlla bëggee arrêté moo tax mu xañ Isa ibnu Maryama bàyyi may ko rek ndey ci banu Israël bañ ko fa may bàyyi ndax jeexal nubuwa bi ndax nubuwa ci gaño bàyyi lay jaar mm. loolu laa feeñal ci euh, téere bi wane tamit ni coow li coow li yëpp maanaam muy yahud yi mm-hmm. muy nasaraan yi mm-hmm. bañ a nangu ne sëtu isa euh, ngeen baal ma sëtu ismail mm-hmm. te muy muhammad alayhi salaam sëtaatu sëtam la mooy xaatamu nabiyin bu bu ñu nangu woon lool rek kon daanaka lu bari leer mais jàpp lépp ci euh, yahudi la yem mm-hmm. euh, Ismaïl amul wàll ci càllale nubuwa bi mm-hmm. loolu moo indi coow loolu moo indi daanaka wute bi gën a mën nga wax bi gën a màgg mm-hmm. diggante yahudi ak euh, nasaraan yi ak musulman yi lu jëm ni nag ci écriture moom daanaka presque bii mooy sama neuvième wala dixième livre maa ngi commencé bind depuis les années quatre vingt je peux dire quatre vingt quatorze. Hmm. laa commencé di bind ni ngeen ko gisee nii am na fi après xëy ngeen jël ko am na fi yenn livres yu disponible ba tey. Hmm. Euh, gis ngeen sama bibliothèque donc loolu dafa mës a nekk sama. passion euh, hmm. lu ma bëgg maa ngi fàttaliku ba ma nekkee tout tànk doon naa làqu di liir. ba ñu añ bàyyi ma. Ah. ma ñëw ñu ne ma sa bopp bu rëy bi foo nekkoon <laughs> fekk maa ngi làqu ci kër gi di liir pour wane. mbisu mbiru liir. Mm-hmm. daf ma yàgg daf ma yàgg euh, yitteel même mm-hmm. suñ doon joxee ay xaalisu suñ ak yëpp sama xaalis damay dem jënd livre wala bande dessinée euh, di liir. c'est intéressant ci loolu la ñuy duggee ci li nga xamante ni mooy politique euh, imam naka nga gisee acteur politique yi léegi nii seen ay kàddu li nga xamante ne ñu ngi koy génne di ko waxtaanee est-ce que ànd nga ak ñoom ci li nga xamante ni moom la ñuy wax. waaw am na lu ma ciy ànd ak lu ma ci àndul. Eh, lu ñu wax lu rafet ànd naa ci mm-hmm. lu ñu wax lu rafetul lu jaadu luy indi fitna ànduma ci mm-hmm. seeni wax nag dafa wute mm-hmm. euh, ba pare dafa dafa complexe man nekkuma ki nga xam ni damay euh, nuñ koy waxee euh, sànni ci ñag bi ñuy politique ñëpp politique baaxul képp kuy politique mënoo nekk nitu dëgg naa fekk ngay doon déedéet man duma wax loolu parce que ñiy politique yëpp yamuñu jikko yamuñu gëm-gëm yamuñu nañuy doxalee yamuñu teggin Euh, kon boole ñëpp sànni ci euh, panier bi du ma ko def dafa mel ne tey jii yéen seen métier tey. Mm-hmm. ñëpp yemuñu tey public TV ni ñu bëgg a am na mm-hmm. beneen chaîne boo xam ne liggéey wuñ noonu. voilà est tey su ma ne woon rek média yi moom. Mm. ñu doy waar lañ. est-ce que di ngeen ko nangu. est-ce que dinaa nangu tey ñu ne imam yëpp daal dañoo doy waar parce que imam Kanté def na benn mbir bu jaaduwul. Mm. ay milliers d'imam nekk Sénégal nga daal ne eh imam yi de moom. kon nag noonu la. Mm. ñiy politique tamit noonu la. kon nag di nga gis benn nit bi de ci benn dossier mu wax ci lu jaadu lu rafet. Mm-hmm. nga gis ko ngeen baal ma wax bi ci beneen dossier mu de ko ne. bu ko defee li ma islam wax rek laay def du ma xool jëmm yi waaye taxawaay yi ak position yi lu ma gis ne rafet na jaadu na. Mm-hmm. te man ñaara ma yitteel rawatina li sama àdduna mooy l'islam bi ak réew mm-hmm. nga wax sax aussi ak Afrique. gaa donc euh, lu ma gis nit wax ko loo xam ne daal day rafet ci l'islam. day dooleel diine l'islam ak ay jàngaleem ak ay jikkoom et cetera. Euh, ma approuvé ko. Hmm. lu ma gis nit wax loo xam ne lu baax la ci réew mi di koy suqali. day indi jàmm ci réew mi day indi yokk ci réew mi. Hmm. ak ci Afrique ak ba ci humanité bi yëpp. Euh, gis nga temps yi maa ngi def ay post di euh, yuuxu. Hmm. naan nañ jàppale Somalie balaa famine bi di si ñuy doog a daw di dimbale ay nit ñuy faatu. ak yu ni mel ak yu ni mel kon ñiy politique dama leen wormaal. jox leen seen wàccuwaay te rek ma wax la benn affaire. politique mën ta ñàkk ci réew. parce que il faut mu am ñu politique. pour mën a nekk député. Mm. wala maire mm. wala ministre wala président charte réew mi loolu la laaj. kon ñi wax naan politique baaxul kon nañ dindi politique ci charte réew mi ñoom ñu tabb seen bopp président. Mm. wala ministre kon léegi jaay si génn ak ay yat kon nag léegi politique euh, dafa jaaru réew mu silwise. da ngay da ngay am keppaaru politique ku jé politique. mais na tegu ci yoon nag justement kiy politique na ko rafetal euh, maanaam politique bañ laa jaral ñàkk sa ngor ak sa diine ak euh, maanaam nguur jaral la dëggate lu ne pour egg ca mm. euh, nguur jaral la def lu ne pour téye ko ci sa loxo mm. nguur jaral la def lu ne pour jot ci waaw loolu rek dañ war a seetaat mm. voilà imam ñu gis euh, li nga xamante ne mooy nemmeeku tour bi nga xamante ne kii di Ousmane Sonko daf ko daal di def euh, ba tax na Macky Sall yebal ay ñi nga xamante ñooy ay gendarme ñu ngir ñu euh, aaye ko loolu la est-ce que loolu jaadu ndax moom bi muy en 2012 bi mu bëggee def nemmeeku tour kii di Ablaye Wade daf ko bàyyi mu def ko tranquillement dérangé wu ko defu ko dara lan moo tax li nga xamante ne mooy Ousmane Sonko bëgg na ko muy nemmeeku tour bi mu war a mën a yebal ay gendarme pour ñu arrêté ko est-ce loolu jaadu na yan analyse nga ci mun a def non d'accord mooy wala bokk gisewuma mbir mi ne euh, Macky Sall dafa yónnee ay gendarme ngir ñu tere Sonko mu def nemmeeku tur gisewuma ko noonu mhm, li ma gis ci presse bi mhm. mooy que ni Ousmane Sonko tàmbali na def nemmeeku tur mhm. surtout Mbour xaw ma ay gendarme ñëw fu ñu am coow et cetera ginnaaw ga li ma gis mooy Ousmane Sonko mi ngi continuer di def nemmeeku tur kon man du mën a ànd ak kuy wax ni dañ koo tere mu def nemmeeku tuur léegi mhm. nag épisode bi amoon mhm. mbuur wala beneen épisode boo xam ne mën na am ci diggante bi mhm. euh, nañ ko traité par épisode mais ci principe bu def nemmeeku tuur je pense que mi ngi koy def euh, et que tamit euh, nu mu tuddati Macky Sall amul sañ-sañu tere Ousmane Sonko mu def nemmeeku comme ni nga ko waxee moom defoon na ko comme ni nga ko waxee charte réew mi tam may na ko àqu yelleef Ousmane Sonko keneen ki nekk Sen TV nu mu tuddati Bougane def na fi bu yàgg tippi tànk xaw ma waaw am na keneen tamit euh, ki nekkoon ci Idrissa Seck. Euh, damay fàtte déedéet. père père Pape Djibril Fall. déedéet déedéet ki nekkoon ci Idrissa Seck. Euh, Déthié Déthié Fall moom tam mi ngi def xaw ma am na nu mu ko tuddee ci wolof. kon loolu kenn mënu ko tere ci réew mi fii Macky su bëggee tere loolu moom wax dëgg yàlla yi fi lay doon. Mhm. parce que d' defoon na ko ba pare charte mi da ko maye. Mhm. man mi su ma neexoon léegi ma jóg def nemmeeku tur. en tant que benn association. Mhm. wala benn imam yor sama mbooloo dem di citoyen bu ko neexee mu dem fu ko neex. Mhm. tant que yeewul fitna wala et cetera et cetera donc par contre nag. Mhm. c' est vrai que fi mu nekk ñu ne Nemmeeku Tour warul nekk campagne préélectorale mhm. parce que campagne bi dafa am loi bu ko régir dafa am fu muy commencé ak na muy demee ak fu muy jeexee. mais nag dem seeti nit ñi di waxtaan ak ñoom yi kooku bépp organisation politique citoyenne wala benn jëmm. Euh, mën na ko def l'essentiel mm. mooy que mu bañ a euh, yee fitna mm. kon nag loolu la loolu lay analyser kon président Macky Sall bu mu sax jéem a tere loolu ñaareel ba yaakaaruma ni quand même mm. euh, da koy tere mais plutôt préfet yeeg gouverneur yi ak yu mel noonu bu amee luy xew ci gox ba ñoom ñoo war a seet lii lan la bu laajee ñu lijjanti ko ci wàllu sécurité ñu lijjanti ko mais à part ça nañ bàyyi jàmbur mu def nemmeeku turam moom it na ko def ci sàtt réew mi ni mu ko bëggee lépp jaar ci yoon ndax jàpp nga ne ñi nga xamante ne acteur politique yi euh, jafe-jafe doomu aadama yi wala jafe-jafe population yi soxal na leen ndax li nga xamante ni mooy euh, assemblée nationale tey jii rek ñu ngi fay wax li nga xamante ni mooy waxum oto ba tax na opposition bi ne ñoom du ñu jël set cent 700000 euh, francs par mois yi nga xamante moom lañu la état yi di proposé sox oto lañ soxla ba tax na loolu noonu ma def ci jàngat di laaj tamit yow tamit sa xalaat ci loolu ba xam acteur politique yi seen bopp lañ fi nekk wala population bi lañ fi nekkal ndax bañ leen di tabb c'était pour la population <laughs> ñaar yëpp lañ fi nekkal xam naa man samay tontu moom du neex noonu mais <laughs> mais euh, te noonu lay tontu nag parce que man li ma bëgg ci Sénégal du forcément euh, benn xew-xew ñu tëj Sénégal ci loolu. Mm. <laughs> mais damay gis feneen. comme ni ñuy wax souvent rek bon man du ma am politique engagé guma mm-hmm. mm-hmm. politiquement mën na am du ma ci mës a engagé. mën na am dinaa mës a engagé mais euh, dafa am différence entre homme d'État ak homme politique. wala femme politique homme d' état xam ne da ngay xool état. Mhm. xool dans vingt ans lan nga bëgg Sénégal mel secteur bu nekk enseignement bi éducation loolu mooy homme d' état. wala mhm. femme d' état. Mhm. mais effectivement politicien juste nga xam ni lijjanti rek. Euh, ba jot ci ressources yi. di di distribuer waat sa gaay yooyu loolu <laughs> c'est une petite politique boo xam ni kenn xamul lan la. mais nag quand même en même temps bëgguma ñu injuste ci ñoom. c'est-à-dire que euh, homme politique yi waaw dañ fi nekkal askan bi ak seen bopp. ak seen waaw <laughs> loolu la <laughs> parce que euh, dooma ni ñi politique duñ defal dara askan bi xam nga da ngay dégg lu mel noonu da ngay dégg sax ku ne mm, mm. par exemple fi dara ma jox la rek benn exemple mm-hmm. nan nga mën nan nga mën a te te sénégalais ak seen i contradiction mm. nga jox ma occasion d'ailleurs moo xaali ci mm-hmm. ak seen i contradiction te président Abdoulaye Wade am na yu mu fi doon def mm-hmm. ñu dem ba mu yàgg daal ne nangam ak nangam doomam loo fi bëgg indi jaadu nangam nangam <laughs> ñu jële ko fi indi Macky Sall mhm. léegi am na ñoo xam ne nañ Macky euh, président Wade sax moo ko tane woon kon kon président Wade am na lu baax lu mu doon def tamit mhm. kon seen mbir a ngi noonu ku mhm. ñëwagul moo baax euh, bu ko defee euh, du ma nangu man façon jugement yu gàtt yooyu lëmës noonu mais homme politique ak femme politique yi nan la nit mën a nekkee ministre wala président wala député c'est vrai que am na ay cas exceptionnel te du defal dara askan bi mënu nekk il faut que dina am lu mu def léegi nag li mu def mën nga wax ni peut-être du priorité mën nga wax ne daf ko defal ñenn bàyyi ñeen na mën nga wax ne itam ràccal na boppam lu bëri. mais imam kon day defal boppam coowul oto 700000 teelul teelul ci assemblée nationale. kan moo laajte oto 700000. oto lañ leen waroon jox ñoom ñee opposition bi député de l' opposition di laajte oto. waaw bi proposé leen chaque mois 700000 francs que jox leen oto ñoom ñi bañ loolu seen oto la ñuy xaar. ndax yaakaaroo loolu gisuma fa coow li teel na loolu. non non teelul non lu teelul benn yoon lu mu teelee léegi lañ ko war a parce que parce que léegi lañu war a régler affaire oto indemnité teelul imaam xanaa xanaa Pastef nga euh, c'est normal mm. oto oto ak euh, indemnité mm-hmm. réglement intérieur assemblée nationale li mu laaj nañ ko defee noonu ma wax la benn affaire mm-hmm. bañ changé ko ma réew réew mu civilisé la bëgg man donc justement du ma réew moo xam ni ku nekk li la arrangé bis boobu nga neen réew mi mel nii tey mm. te ay loi am fi ah? donc Euh, opposition bi. fi mu mm-hmm. nekk nii par exemple nañ dugal seen proposition de loi li ñu bëgg yëpp mu soppeeku ci réew mi wala ci nangam ñu dugal proposition de loi ñu voté waxtaan et cetera noonu nga mën a def. bu dul mm-hmm. loolu nga indi fitna. Euh, état bi tam am na droit def projet de loi. Mm-hmm. léegi nag affaire oto boobu règlement intérieur bi li mu ci wax yëruma ko détail par détail. nañu respecté loolu bu fekkee ni réglement intérieur bi dafa wax député yi dañ leen war a jox oto. lu jaadu la. député day am oto pour dem ci gox goxaat yi dem ci nit ñi et cetera tey jii boo bëggee dem Kédougou boo amul oto fu nooy def euh, ay population di jooy ne ñu ngi nangu suñ suuf euh, da ngay toog fi yore ay vidéo di def ay appel hmm. donc c'est normal léegi nag xaw ma nan la demee ba ñu bëgg leen jox sept cent mille à la place oto bu fekkee dañ leen bëgg a jox sept cent mille hmm. à la place ñoom hmm. am nañ droit bu fekkee règlement intérieur bi dafa wax ni oto lañ leen war te loolu moo nekk ci loi bi gouvernement bi amul droit ne leen non léegi man 700000 laa leen di jox wala boog suy am dafay nekk lu ñuy waxtaanee ba juboo ko mm-hmm. suñ waxtaanee ba juboo ba ñoom ñu nangu 700000 yi xayrul suñ ñu tënk ko bind ko mu leer mm-hmm. suñ ko nanguwul ñu dellu ci cosaan mooy la règlement ba wax mooy la ñu jox leen oto te gouvernement fi nekk manqué wul moyens yu muy joxe oto. mais imam dañoo toll ci jamono joo xamante dëkk bi dafa dëgër. Euh, lépp a cher buñ la proposé 700000 nga nga ne yow da fa toogal askan wi xanaa sa xel war na la may ñi nga xamante ne ñu ngi sa ginnaaw dund gi cher te amuñu ñu ko jëndee nga war a xalaat ñooñu au moins. ñan lañ proposé 700000 député yi. waaw opposition yu bañ. à la place de de oto. opposition yu bañ. waaw en tout cas benn jàngat mi ngi fa. Mhm. mooy que xam nga kon bul yaakaar ni kon ku nekk opposition rek euh, forcément. bëgguloo noos parce que bu fekkee ni da ngaa nekk opposition boobu daal ne man oto moo ma gënal. Mm-hmm. te yow yaa ngi naan réew mi dafa metti na fi Macky Sall jógee. Euh, téléspectateur public TV mbégte la ñu am saa su nekk ak contentement di jàkkaaloo ak yéen euh, tey nag ma seet ki nga xamante ni mooy Amadou Makhtar Kanté ñu gën ko xam ci imam Kanté nekk tamit écrivain moom laa seet si tey fii euh, wax naa leen lépp loo xamante ne xew na rek damay dem seeti nit bi nga xamante ne xam-xam màcc na ci loolu ba tax na tey jii ma seet ki nga xamante ne mooy imam Kanté ma bàyyi ko mu nuyoo ak yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi koy sitaan imam maa ngi lay nuyu. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah maa ngi lay delloo sa fay soxna si di nuyu équipe bu Public TV yëpp di nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi topp. Euh, émission bi moo xam ñu ngi toppee Sénégal moo xam bitim réew. Mm-hmm. Imaam dañuy tàmbalee ci li nga xamante ne mooy écriture maanaam yow écrivain nga lan moo la dugal ci loolu ak ban livre nga xamante ne moo nga mujjee dugal euh, fii ci réseau yi. waaw euh, livre bi laa mujjee génne. Mm-hmm. de quoi Jésus fils de Marie est-il signe. Mm-hmm. Euh, mu nekk benn enquête boo xam ni dama ko def diggante Bible ak Alquran. ci lan mooy wàccuwaayu ak taxawaayu Jésus fils de Marie Isa dañ koy wax ci alquran Isa ibn Mariam euh, ma gëstu ci daanaka gën jaa néew juróomi at toogaat at pour bind ko mhm. te mu nekk téere boo xam ne dafa concerné monde bi yëpp daanaka parce que kii di juif kii di chrétien kii di musulman mhm. euh, am na lu téere bi di wax ak yow mhm. euh, ci tënk dama ci feeñal ni ba ma gëstoo bu baax bible gëstu alquran rawatina alquran nga xam ni moom laa gën a jekku dama gis ne Isa ibnu Maryam li mu ñàkk bàyyi mm. du loo xam ni lu doy waar la doy waar la loo xam ne dañ naan kumpa bu ci kenn wax mm-hmm. waaye dama gis ne li mu ñàkk bàyyi borom bi dafa bëggoon wane mm-hmm. ni nubuwa nekk yonent bi mu diggoon yonent yàlla Ibrahima muy jaar ci geño bàyyi mm-hmm. bi ko yàlla bëggee arrêté moo tax mu xañ Isa ibnu Maryama bàyyi may ko rek ndey ci banu Israël bañ ko fa may bàyyi ndax jeexal nubuwa bi ndax nubuwa ci gaño bàyyi lay jaar mm. loolu laa feeñal ci euh, téere bi wane tamit ni coow li coow li yëpp maanaam muy yahud yi mm-hmm. muy nasaraan yi mm-hmm. bañ a nangu ne sëtu isa euh, ngeen baal ma sëtu ismail mm-hmm. te muy muhammad alayhi salaam sëtaatu sëtam la mooy xaatamu nabiyin bu bu ñu nangu woon lool rek kon daanaka lu bari leer mais jàppane lépp ci euh, yahudi la yem mm-hmm. euh, Ismaïl amul wàll ci càllale nubuwa bi mm-hmm. loolu moo indi coow loolu moo indi daa daanaka wute bi gën mën nga wax bi gën a màgg mm-hmm. diggante yahudi ak euh, nasaraan yi ak musulman yi lu jëm ni nag ci écriture moom daanaka presque bii mooy sama neuvième wala dixième livre maa ngi commencé bind depuis les années quatre vingt je peux dire quatorze laa commencé di bind ni ngeen ko gisee nii am na fi après xëy na ñàkk ngeen jël ko am na fi yenn livres yu disponible ba tey. Mm. Euh, gis ngeen sama bibliothèque donc loolu dafa mës a nekk sama. passion euh, mm. lu ma bëgg maa ngi fàttaliku ba ma nekkee tout tànk doon naa làqu di liir. Mm-hmm. ba ñu añ bàyyi ma. Ah. ma ñëw ñu ne ma sa bopp bu rëy bi foo nekkoon. <laughs> fekk maa ngi làqu ci kër gi di liir pour wane mbisu mbiru liir. Mm-hmm. daf ma yàgg daf ma yàgg euh, yitteel même suñ mm-hmm. doon joxe ay xaalis suñ déwénal ak yëpp sama xaalis damay dem jënd livre wala bande dessinée di liir. c'est intéressant ci loolu la ñuy duggee ci li nga xamante ni mooy politique euh, imam naka nga gisee acteur politique yi léegi nii seen ay kàddu li nga xamante ne ñu ngi koy génne di ko ce que ànd nga ci li nga xamante ni moom la ñuy wax waaw am na lu ma ciy ànd ak lu ma ci àndul eh, lu ñu wax lu rafet ànd ci mm-hmm. lu ñu wax lu rafetul lu jaadu luy indi fitna ànduma ci mm-hmm. seen i wax nag dafa wuute mm-hmm. euh, ba pare dafa dafa complexe man nekkuma ki nga xam ni damay euh, nuñ koy waxee Euh, sànni ci ñag bi ñuy politique ñëpp hmm. politique baaxul képp kuy politique mënoo nekk nitu dëgg naa fekk ngay doon déedéet man duma wax loolu parce que ñiy politique yëpp yamuñu jikko hmm. yamuñu gëm-gëm yamuñu na ñuy doxale yamuñu teggin euh, kon boole ñëpp sànni ci euh, pañe bi duma ko def dafa mel ne tey jii yéen seen métier tey hmm. ñëpp yamuñu tey public TV ni ñu bëgg a am na beneen chaîne boo xam ne liggéey wuñ noonu voilà est que tey su ma ne woon rek média yi moom ñu doy waar lañ est-ce que di ngeen ko nangu est-ce que dinaa nangu tey ñu ne imam yëpp daal dañoo doy waat parce que imam Kanté def na benn mbir bu jaaduwul mm. ay milliers d'imam nekk Sénégal nga daal ne eh imam yi de moom kon nag noonu la mm. ñiy politique tamit noonu la kon nag di nga gis benn nit bi de ci benn dossier mu wax ci lu jaadu lu rafet mm. nga gis ko ngeen baal ma wax bi ci beneen dossier mu de ko ne bu ko defee li ma islam wax rek laay def du ma xool jëmm yi waaye taxawaay yi ak position yi lu ma gis ne rafet na jaadu na te man ñaara ma yitteel rawatina li sama àdduna mooy l'islam bi ak réew mi. Mm. mën nga wax sax aussi ak Afrique. Mm. gaa donc euh, lu ma gis nit wax ko loo xam ne daal day rafet ci l'islam. Mm. day dooleel diine l'islam ak ay jàngaleem ak ay jikkoom et cetera euh, ma approver ko. lu ma gis nit wax loo xam ne lu baax la ci réew mi di koy suqali. day indi jàmm ci réew mi day indi yokk ci réew mi. ak ci Afrique ak ba ci humanité bi yëpp. Euh, gis nga temps yi rek maa ngi def ay post di yuuxu. naan nañ jàppale Somalie balaa famine bi di egsi ñuy doog a daw di dimbale ay nit ñuy faatu. Mm-hmm. ak yu ni mel ak yu ni mel kon eh, ñiy politique dama leen eh, wormaal. Mm-hmm. jox leen seen wàccuwaay te rek ma wax la benn affaire. Mm-hmm. politique mënut a ñàkk ci réew. parce que il faut mu am ñu politique pour mën a nekk député. wala maire wala ministre wala président charte mi loolu la laaj. kon ñiy wax naan politique baaxul kon nañ dindi politique ci charte réew mi ñoom ñu tabb seen bopp président. Mm. wala ministre kon léegi jaay si génn ak nag léegi. politique euh, dafa jaaru réew mu silwise mhm. da ngay da ngay am keppaaru politique ku jé politique mais na tegu ci yoon nag justement mhm. kiy politique na ko rafetal euh, maanaam politique bañ laa jaral mhm. ñàkk sa ngor ak sa diine ak euh, nekk un monstre maanaam nguur jaral la dëggate lu ne pour egg ca nguur jaral la def lu ne pour téye ko ci sa loxo nguur jaral la def lu ne pour jot ci waaw loolu rek dañu war a seetaat voilà imam ñu gis euh, li nga xamante ne mooy nemmeeku tour bi nga xamante ne kii di Ousmane Sonko daf ko daal di def euh, ba tax na Macky Sall yebal ay ñi nga xamante ñooy ay gendarme ñu ngir ñu euh, aaye ko loolu la est-ce loolu jaadu na ndax moom bi mu en 2012 bi mu bëggee def nemmeeku tour kii di Ablaye Wade daf ko bàyyi mu def ko tranquillement dérangé wu ko defu ko dara lan moo tax li nga xamante ne mooy Ousmane Sonko bëgg na ko muy nemmeeku tour bi mu war a mën a yebal ay gendarme pour ñu arrêté ko est-ce loolu jaadu na yan analyse nga ci mun a def non d'accord mooy wala bokk giseewuma mbir mi ne euh, Macky Sall dafa yónnee ay gendarme ngir ñu tere Sonko mu def nemmeeku tur giseewuma ko noonu mhm, li ma gis ci presse bi mhm. mooy que ni Ousmane Sonko tàmbali na def nemmeeku tur mhm. surtout Mbour xaw ma ay gendarme ñëw fu ñu am coow et cetera ginnaaw ga li ma gis mooy Ousmane Sonko mi ngi continuer di def nemmeeku tur kon man du mën a ànd ak kuy wax ne dañ koo tere mu def nemmeeku léegi mhm. nag épisode bi amoon mhm. mbuur wala beneen épisode boo xam ne mën na am ci diggante bi mhm. euh, nañ ko traité par épisode mais ci principe bu def nemmeeku je pense que mi ngi koy def euh, et que tamit euh, nu mu tuddati Macky Sall amul sañ-sañu tere Ousmane Sonko mu def nemmeeku comme ni nga ko waxee moom defoon na ko comme ni nga ko waxee charte réew mi may na ko àqu yelleef Ousmane Sonko keneen ki nekk Sen TV ni mu tuddati Bougane def na fi bu yàgg tippi tànk xaw waaw am na keneen tamit euh, ki nekkoon ci Idrissa Seck. Euh, damay fàtte déedéet. ki nekkoon ci Idrissa Seck. Euh, Déthié Déthié moom tam mi ngi def xaw ma am na nu ko tuddee ci wolof. kon loolu kenn mënu ko tere ci réew mi fii Macky su bëggee tere loolu moom wax dëgg yàlla yi fi lay doon. Mhm. parce que d' abord defoon na ko ba pare charte réew mi da ko maye. Mhm. man mi su ma neexoon léegi ma jóg def nemmeeku tur. en tant que benn association. Mhm. wala benn imam yor sama mbooloo dem di nemmeeku citoyen bu ko neexee mu dem fu ko neex. Mhm. tant que yeewul fitna wala et cetera et donc par contre nag. Mhm. c' est vrai que fi mu nekk ñu ne Nemmeeku Tour warul nekk campagne préélectorale. Mhm. parce que campagne bi dafa am loi bu ko régir dafa am fu muy commencé ak na muy demee ak fu muy jeexee. mais nag dem seeti nit ñi di waxtaan ak ñoom citoyen yi kooku bépp organisation politique citoyenne wala benn jëmm. Euh, mën na ko def l'essentiel mm. mooy que mu bañ a euh, yee fitna mm. kon nag loolu la loolu lay analyser kon président Macky Sall bu mu sax jéem a tere loolu ñaareel ba yaakaaruma ni quand même mm. euh, da koy tere mais plutôt préfet yeeg gouverneur yi ak yu mel noonu bu amee luy xew ci gox ba ñoom ñoo war a seet lii lan la bu laajee ñu lijjanti ko ci wàllu sécurité ñu lijjanti ko mais à part nañ bàyyi jàmbur mu def nemmeeku turam moom it na ko def ci sàrt réew mi ni mu ko bëggee lépp jaar ci yoon ndax jàpp nga ne ñi nga xamante ne acteur politique yi euh, jafe-jafe doomu aadama yi wala jafe-jafe population yi soxal na leen ndax li nga xamante ni mooy euh, assemblée nationale tey jii rek ñu ngi fay wax li nga xamante ni mooy waxum oto ba tax na opposition bi ne ñoom du ñu jël cent 700000 euh, francs par mois yi nga xamante moom lañ la état yi di proposé sox oto lañ soxla ba tax na loolu noonu ma def ci jàngat di laaj tamit yow tamit sa xalaat ci loolu ba xam acteur politique yi seen bopp lañ fi nekk wala population bi lañ fi nekkal ndax bañ leen di tabb c'était pour la population <laughs> ñaar yëpp lañ fi nekkal xam naa man samay tontu moom du neex noonu mais <laughs> mais euh, te noonu lay tontu nag parce que man li ma bëgg ci Sénégal du forcément euh, benn xew-xew ñu tëj Sénégal ci loolu. Mm. <laughs> mais damay gis feneen comme ni ñuy wax souvent rek boo man duma ma politique engagé guma mm-hmm. mm-hmm. politiquement mën na am du ma ci mës a engagé mën na am dinaa mës a engagé mais euh, dafa am différence entre homme d'état ak homme politique wala femme politique homme d'état koo xam ne da ngay xool état. Mm-hmm. secteur bu nekk enseignement bi éducation loolu mooy homme d'état wala mhm, femme mhm, d'état mhm. mais effectivement politicien juste nga xam ni lijjanti rek euh, ba jot ci ressources yi di di distribuer waat sa gaay yooyu loolu <laughs> c'est une petite politique boo xam ni kenn xamul lan la mais nag quand même en même temps bëgguma ñu injuste ci ñoom c'est-à-dire que euh, homme politique yi waaw dañ fi nekkal askan bi ak seen bopp ak seen bopp waaw <laughs> loolu la euh, <laughs> parce que Euh, dooma ni ñi politique duñ defal dara askan bi xam nga da ngay dégg lu mel noonu da ngay dégg sax ku ne mm, mm. par exemple def fi dara ma jox la rek benn exemple mm-hmm. nan nga mën a nan nga mën a te te sénégalais ak seen i contradiction mm. nga jox ma occasion d'ailleurs moo xaali ci mm-hmm. ak seen i contradiction te président Abdoulaye Wade am na yu mu fi doon def mm-hmm. ñu dem ba mu yàgg daal ne nangam ak nangam doomam loo fi bëgg indi jaadu nangam nangam ñu jëlee ko fi indi Macky Sall léegi am na ñoo xam ne nañ Macky euh, président Wade sax moo ko tane kon kon président na lu baax lu mu doon def seen mbir a ngi noonu ku mm. ñëwagul moo baax. Euh, bu ko defee euh, du ma nangu man façon jugement yu gàtt yooyu. Mm-hmm. Euh, lëmës noonu mais homme politique ak femme politique yi nan la nit mën a nekkee ministre wala président wala député c'est vrai am na ay cas exceptionnel mm-hmm. te du defal dara askan bi mënu nekk il faut que dina am lu mu def léegi nag li mu def mën nga wax ni peut-être du priorité mën nga wax ne daf ko defal ñenn bàyyi ñenn mën nga wax ne tam ràccal na boppam lu bëri. mais kon day kan moo laajte oto 700000. oto lañ leen di waroon jox ñoom ñee opposition bi député de l' opposition di laajte oto. waaw état bi proposé leen chaque mois 700000 francs que mu jox leen oto ñoom ñi bañ loolu seen oto la ñuy xaar. ndax yaakaaroo loolu gisuma fa coow li teel na loolu. non non teelul teelul benn yoon lu mu teele léegi lañ ko war a wax parce que parce que léegi lañ war a régler affaire oto indemnité teelul. c'est normal xanaa Pastef nga. Euh, c'est normal. oto mm. oto ak euh, indemnité. Mm-hmm. règlement intérieur assemblée nationale li mu laaj nañ ko defee noonu ma wax la benn affaire. Mm-hmm. bañ changé ko ma réew réew mu civilisé laa bëgg man donc justement du ma réew moo xam ni ku nekk li la arrangé bis boobu nga neen réew mi mel nii tey. Mm. te ay loi am fi ah donc. Euh, opposition bi. fi mu mm-hmm. nekk nii par exemple nañ dugal seen proposition de loi li ñu bëgg yëpp mu soppeeku. ci réew mi wala ci nangam ñu dugal proposition de loi ñu voté waxtaan et cetera noonu nga mën a def. bu dul mm. loolu nga indi fitna. Euh, état bi tam am na droit def projet de loi. Mm-hmm. léegi nag affaire oto boobu règlement intérieur bi li mu ci wax yëruma ko détail par détail. Mm-hmm. nañu respecté loolu bu fekkee ni règlement intérieur bi dafa wax député yi dañ leen war a jox oto. Mm-hmm. lu jaadu la député day am oto pour dem ci gox goxaat yi dem ci nit ñi et cetera tey jii boo bëggee dem Kédougou boo amul oto fu nooy def euh, ay population di jooy. ne ñu ngi nangu suñ suuf euh, da ngay toog fi yore ay vidéo di def ay appel vidéo hmm. donc c' normal léegi nag xaw ma nan la demee. ba ñu bëgg leen jox 700000 à la place oto bu fekkee dañ leen bëgg a jox 700000. Hmm. à la place ñoom hmm. am nañ droit bu fekkee règlement intérieur bi dafa wax ni oto lañ leen war jox. te loolu moo nekk ci loi bi gouvernement bi amul droit ne leen noo léegi man 700000 laa leen di jox wala bokk suy am. dafay nekk lu ñuy waxtaanee ba juboo ko mm-hmm. suñu waxtaanee ba juboo ba ñoom ñu nangu sept cent mille yi xayrul suñ ñu tënk ko bind ko mu leer mm-hmm. suñ ko nanguwul ñu dellu ci cosaan mooy la règlement ba wax mooy la ñu jox leen oto te gouvernement fi nekk manqué wul moyen yu muy joxe ci jamono joo xamante dëkk bi dafa dëgër euh, lépp a cher buñ la proposé sept cent mille nga nga ne yow da nga fa toogal askan wi xanaa sa xel war na la may ñi nga xamante ne ñu ngi sa ginnaaw dund gi cher te amuñu lu ñu ko jëndee nga war a xalaat ñooñu au moins ñan lañ proposé sept cent mille député yi waaw ah. opposition yu bañ. à la place de de oto. opposition yu waaw en tout cas benn jàngat mi ngi fa. Mhm. mooy que xam nga kon bul yaakaar ni kon ku nekk opposition rek euh, forcément bugguloo noos. parce que bu fekkee ni da ngaa nekk opposition boobu daan ne man oto moo ma gënal. Mhm. te yaa ngi naan réew mi dafa metti na fi Macky Sall jógee. te salaire ci mhm. li ma xam man. kenn lay doon comme comme pour maa ngi leeral foofu gis nga on fait beaucoup confusion. kenn lay doon ci li ma xam. mooy grande xaw ma salaire lañ ko tuddee xaw ma lañ ko tuddee peut-être am na lenn lu ko gouvernement bi di jox en tant que institut islamique mu nekk grande mosquée bu président doon jullee. chaque mois la koy mais mais waaw ni ñu ko mën a tuddee. Mm-hmm. compte normal la euh, institution la. Mm-hmm. Euh, lële euh, nu mu tuddati loolu laa ci xam te même loolu am na ay temps kenn ku nekk si ñoom foofu génn. di kaas naan affaire boobu nañ ko ko jox kon dafa mel ne temps yooyu joxatuñ ko ko woon wala joxuñ ko ko extra mais nu mu tuddati Euh, président Macky Sall ak ñeneen yi mm-hmm. bu ñu waxee affaire salaire xamal ñaata million la ñuy jox ay ay marabu ndax politique kese c'est pas parce que dañ ko jox ñoo xam ni euh, dañoo yore euh, jàngule l'islam et cetera mais ñu yore ay mbooloo ñaata million lañ leen jox surtout depuis Ablaye Wade. moo gën a dooleel affaire président Macky Sall tam ñëw fekk ko ci. ñaata million da ngay gis benn benn benn benn benn sëtu diw. Mm-hmm. boo xam ni sant maamam rek moo tax ñu koy jox ay millions mbooloo yi mu yor. imam bi toog nag 24 heures ci mosquée bi di jiite julli. di mm-hmm. jàngale di tontu masala di takk sëy di jiite ku faatu ba ba armeer ya kooku yéene wuñ ko dara kooku suñ ko joxee 10 000 francs sax mi ngi noos. mais imam yaa ngi mbooloo <laughs> ñu ne imam baa ngi noos <laughs> imam yaa ngi mbooloo la bokkul ndax sëtu diw ak imam bi bokkuñu. ndax dama la bëgg wax ne lu tax sëtu diw. Mm-hmm. ñu mën a jël argent public jox la ko. Mm-hmm. kiy diriger communauté di def service public religieux euh, bu ñu ko joxee 5000 sax ñu ne est-ce que war nañ ko ko jox loolu laa la bëgg a wax. kon yéen imaam yi na ko ma mës a laaj am na ko ma a laaj mhm. euh, ma dañu yore xaalis extra ne ko wax ma wax ma benn imaam boo xam bu riche maanaam riche bu fees boo xam ne boo ko xoolee xam ne ki mi mi yow imaam Kanté ku la xool xam ne feex nga yow mii rek attends na ma ne ma ne ko wax ma ko mhm. ma ne ko par contre des bu riches mhm. loolu sénégalais yi xam nañ leen te ñooñu seen santu maam moo tax waaw xam nañ leen di nga koo xam ni li muy dem jàkk sax bariwul mais sant maamam moo tax lu ne yor na ko du dëgg on se connaît dans ce pays par contre imam bi imam bu riche ba féex di di gaare benn oto bu féex ah bu solo nga xam ni kii féex na yore ñeenti soxnaam euh, yore passeport am di tukki imam yi si jàkk fii ñaata la ñu ci loolu donc loolu laa la bëgg a wax mais de toute façon mhm. boo demee même dans les pays musulmans vrais bien organisés mhm. imam yi ay fonctionnaires lañ dañu am salaire ñi nga xam ne Allemagne. Mhm. évêques yi yëpp nii dañ leen di jox salaire dans les églises et tout parce que dañ ko jubóo seen biir comme Sénégal nag organisé wuñ dara dugg ngeen dugg ngeen loolu moo tax mais sinon. imaam yi dañu war a mën a am salaire. parce que euh, ko mate ñu tabb la imaam nga am sa euh, salaire ñu ñu def ko. on ne demande pas des privilèges mhm. ñu def ko ci niveau. Mhm. Euh, bi nga xam ne mooy niveau diplôme bi nga am. pour nekk imaam hiérarchie mais jàmm na ñooy. ba pare mu toog ci jàkka ji di jiite waxtu juróom di jàngale di def service yi mu war a def. Mm-hmm. Euh, foofu. kan kan ba nit. exactement léegi nag jàkka yi amul organisation mm-hmm. boobu. mën na am problème parce que léegi lii dugg si jàkka yi sénégalais yi dañuy joxe xaalis ci jàkka yi. Mm-hmm. pour wóolu nañ ñi nekk si jàkka yi. ñu koy toppatoo parce que xam nañ jàkka du rek mur il faut que ñuy def xaalis foofu jàkka jooju nag ña fa nekk bu ñu mànduwul juboo ak seen imam. ba pare teg ay charte wax ne alal biy dugg si jàkka ji imam bi lii lañ ko ci jox Euh, entretien mosquée bi lii lay demee lii ñi ndóol ci quartier bi lañ koy jox. Mm-hmm. lii nangam ak nangam lii facture facture la ñuy fay jàkk ñooy fay seen facture bi et cetera euh, buñ ko organisé wul man def naa benn vidéo je pense démb xaw ma. Mm-hmm. nose ko def ko benn genre règlement intérieur. Euh, mooy indi léeg-léeg mm-hmm. nit ki xabaabal def lu ko neex te kenn du ko mën a wax lu tax nga def lii suñ ko waxee mu ne ma lii laa yàgg def. kon transparence boobu dañ ko war a formaliser. organiser jàkk yi bu clair. ah lii mooy fonction imam président bureau bi lii la commission bi lii la bu ci nekk ak responsabilité ñu bind ko mu nekk benn règlement intérieur ñu teg ko ku ko wàcc ñu xam ne yaa ko wàcc mhm. loolu mën na indi solution kon tamit lu mel nii ñuy wax ne kara xawma la kon doonul an parce que mhm. dañuy naan rek euh, imam bi lii mooy fonction lii ak lii ba pare affaire politique yi tamit mu leer mhm. que jàkka ji jàngale lislaam terewul imam bi mën na génn nag dem ci benn parti politique mais du ñëw di politique ci biir jàkka ji imam ban nit même ba ci biir xutba yi da nga mm-hmm. gis benn imam boo xam ne day xutba rek nga xam ne dafa far dëgg la xutba rek nga xam ne kii dafa contre Macky Sall dafa ànd ak di wala dafa contre di mm-hmm. euh, voilà euh, donc yooyu yëpp nañ ci def attention parce que c'est un c'est un mélange explosif diine ak politique c' mm. dafa dafa doy waar dafa sensible. dafa très donc ban imam boo ñu doon wax kan moo war a nekk juma wala yan critère la nit war a a am pour jiite juma nekk imam euh, lan nga ñu ciy wax. dafa dafa dafa complexe ba nga xam ni. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax islam comme dafa nekk dine bu réaliste. Mm-hmm. Euh, dafay nekk euh, autour d'homme islam du teg loo xam ni c' est impossible wala ay benn nit ñoo koy mën a remplir. kon doo kenn du mën nekk imam. waaw te nit matul moo tax. Euh, islam critères yu simple rek la teg ba mm. ñaar pour man ñaari critères yu simple rek la mm, léegi nag euh, mën nga wax sax ñett mm. benn bi mooy xam-xam dama yaakaar ni xanaa euh, luñ la dënk war nga xam lan la ak nuñ koy yore kon lan mooy fonction imam ñi ñi war a tabb imam war nañ xam ñoom seen bopp yan fonction mooy fonction imam ñu seet nag léegi kan ci ñi am na loolu donc xam-xam xam-xamul islam suñu waxee xam-xam ni ngeen bëgg a wax ah nooy jiitee julli nooy ah yooyu yëpp noonu Euh, deuxième bi. Mm-hmm. mooy kóolute probité morale. Mm-hmm. nekk koo xam ni euh, mënoo jiite nit ñi ba pare te tanewoo kenn. Mm-hmm. waaw ñu lay dégg ci yoo xam ni day doy waar. kon probité morale te loolu même ci société tubaab bi yëpp ni da doon am euh, ba léegi certificat de bonne vie et mœurs. loolu moo ko doon indi kon tamit imaam bi lu mu xam-xam-xam bu nekkee benn waay boo xam ni dafa doy waar kenn du ko jox muy jiite nit ñi bon kooku mooy troisième kon kóolute boobu c'est important. Euh, ñetteel bi pour man justement ñetteel bi mhm. mooy euh, communauté bi tabb la mhm. wala boo ki la tabb daal communauté bi nangu nañu kon pour man ñett yooyu su amee mhm. kooku imaam la nañ ko bàyyi mu def liggéeyam euh, di jàppalanteeg moom bu juumee ñu waxtaan ak moom et cetera ki biir julli bi ma jox la foofu mooy foofu laa lay joxe exemple tey imaam bu ñëwee ci jàkka ji pour ñu julli par exemple te waxtu bi jotagul par exemple mu ne kaay leen julli tàkkusaan te te te te dix heures moo jot est-ce que dina am mbooloo bu ànd ak moom xam nga lu tax mm-hmm. parce que dañ koy wan attention nag heure julli dafa am heure boo xam ni dépendrul ci sa bànneex yow mm-hmm. kon imam bi du nekk benn roi boo xam ni mu ne kii ñu ne gongo après bu waxtu bi jotee mu ne ayo nañ leen julli ñu ne ko comme imam nga nag dafa am kuy nodd mm-hmm. mais imam may nodd kon naa bàyyil kenn nodd ba pare bu demee ñu tafar sàppe mu kàbbar nit ñi kàbbar mhm. bu taree juum ñu gàgganti ko kenn du ko mhm. laaj imam est-ce que ma gàgganti la s'il te plaît dañ koy gàgganti rek mhm. parce que xool xool organisation boobu rek wane na communauté bi ni mu ni mu war a demee ak ci ay charte la war a tegu kon warul tegu benn yoon te fu ngeen gis fitna am rek xamal ni bàyyi nañ benn espace boo xam nit ki mën na def bànneexu bakkanam ba ba muy dajee ku ko bañal bànneexu bakkanam fitna am imam ndax yëngal li nga xamante xam le ni dafa njaaloo nañ ko dóor lu tolloo ko téeméeri junne téeméeri yat euh, pour mu dindi péché boobu ndax yënga loolu gis naa ko ci benn vidéo ay image yi rek xooluma ko tellement tellement daf maa jaaxal ma ma xooluma ko mais euh, nu mu tuddati euh, xale bu jigéen moom moo ne dafa njaaloo moo dem pour ñu dóor ko lu tolloog cent xale bu jigéen bi d'abord moom ci boppam est-ce que xam na luy njaaloo am kese yooyu gis nga ni ci def ndànk est-ce que xam na luy njaaloo xam nga xam nga daf njaaloo ay niveau la ah ci ci charia. Mm, lan mooy njaaloo. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy góor ak jigéen boo xam ne duñ jëkkër ak jabar. Mm. di sëy ngeen baal ma wax bi comme kuur ci biir gën na. léegi lan mooy tax ñu xam ne kii dafa xëy na góor ak jigéen mm-hmm. mën nañu mën nañu làmbante nangam nangam ñee ñu dugg ci te fekk defuñ egguñu foofu. léeg-léeg ku jigéen kooku. mën na bañ a xam charia sax dem daan ne man damaa njaaloo parce que démb rek maag benn góor ñu ngi. Mhm. na donc bon loolu parenthèse la mais. Mhm. Euh, loolu déjà lenn la leneen li mooy que euh, man euh, musuma xam ni gox boobu noonu ñuy wax. Mhm. dañ fay àtte charia ci wàllu njaaloo première chose. donc il faut ñu gëstu ba xam loolu nan la demee ñetteel ba. mooy ñi àtte ndaw si ci loolu. Mhm. ku leen jox boobu sañ-sañ. nekk imaam rek wala jàngalekat mhm. alxuraan taxul ngay appliquer charia. Mhm. ci nit même bu la ko waxee. kooku beneen question bu ñu war a lijjanti la. beneen bi aussi mooy bu fekkee dañu ne rek charia la ñuy àtte. pourquoi rek ñuy àtte njaalo est-ce que gox boobu ñi fay sàcc ñu ngi dagg seen loxo. ak yeneen àtte charia yi. est-ce que gox boobu. Euh, jigéen ñi ñu ngi muuru ku génn ci mbedd bi te muuroowul nangam nangam et mm. kon nag lu tax ñu jël cas boobu rek naan dañ fay atte charia loolu lu ma lu ma lu yaakaaroon ni waroon nañ koo def sans autant ñu tëj sama bopp ñu publier ko non mais même war a def bi sax laa lay wax ni pour man problème la eh nan lañ koy defee te duñ ko publier monde bi ñu ni lan nga fi mën a def duñ ko publier foo koy defee te duñ ko publier parce que ndaw si bu xasee ba ñëw waxtaan ko kooku amatul droit sax beroog moom islam moo tax ma ne la procédure yi mu laaj ci boppam laa gis ne dajewul ba nga xam ni jigéen bi su ñëwee moom jigéen bi dafa war a ànd ak ay nit ñoo xam ne xam nañ ko ci koñ bi. Mm-hmm. nangam nangam. Mm-hmm. Euh, comme ni ko sa salam waxee woon benn jigéen kii ànd naa xelam xoolal jigéen mën na bañ a ànd ak xelam sax ñëw nga dóor ko ay yar te fekk ne àndul ak xelam rek moo tax mu ñëw ne damaa njaaloo. Mm-hmm. man en plus gis naa vidéo bi. ndaw si ni mu tëddee mel na loolu yiwul. yiwul yiwul. Mhm. mooy ki sol rouge loon tëdd. waaw tëdd ci kaw waaw melokaanu jigéenam yëpp feeñ noonu. waa ji faranku laay kii nii ma ne lii même bu doon ci islam kenn du ko defee jigéen mm. ko ah yóbbu ko foo xam ne et cetera ba ko et cetera donc condition yooyu yëpp laa lay wax. ñaareel ay enquête maanaam ki ñëwoon ci temps yéen sasam di wax loolu. Mm-hmm. xoolal dafa ne yéen sasam dama njaaloo yonent bi ne nii. du mooyu ko. borom xam-xam yi xam nga lu wax. Mm-hmm. dañ su demoon du ne dab ko mu ñëw wax. ko daf ko bëgg a wax demal nga tuub sa diggante yàlla bul ñëw. Mm. soxna si ne ko est-ce que dégg nga li may wax. Mm. yonent bi nu muy def yéen mu ne ko waa loo wax mu ne ko dama ne la nangam. Mm-hmm. yonent bi ne ko aha mu ne ah yonent bi ne est-ce que xam ngeen ko fii ñu ne ko waa xam nañ ko fii ci koñ bi mu ne est-ce que ànd naa xelam ñu ne ko waa mu ne ko kenn siifu la mu ne ko déedéet et cetera et cetera donc mm-hmm. est-ce que yooyu yëpp daje na ci cas bi donc jël benn xale bu jigéen dóor ay yar ne charia pour man wax dëgg yàlla euh, ñu ngi ñu ngi joxe ci image loo xam ni euh, rafetul. Hmm. kon nag nañu seetaat affaire boobu dëgg-dëgg fan la jóge hmm. ndaw soosu kan la ki ko dóor yar yooyu naan charia la koy atte euh, lan mooy sañ-sañam. Hmm. Euh, ak loolu tamit ba ci ba ci yoonu murit comme ci Touba la. ba ci xalif général bi yëpp nii est-ce ñoom yëg nañ loolu est ñoom ñoo cautionné loolu. bu dee loolu lu tax rek ñu koy def ci gox boobu parce que xanaa dama yaakaar ni ñi nekk foofu gënuñoo nekk murit ñi nekk feneen ak feneen ci biir Touba. mu mel ni lu tax la ñuy appliqué cene ba non mm-hmm. est-ce que noonu la ñuy appliqué est-ce que loolu la ñuy appliqué il paraît waaw il paraît daaw xam il paraît ki yoon noonu mais euh, loolu comme ni ma la ko waxee cene mm-hmm. bu fekkee dañ koy appliqué mm-hmm. ah, man am na lu leerul ci sama bopp lu tax ñuy appliqué loolu rek ci est-ce que ku fa sàcc dañuy dagg sa loxo yow yow lan nga est-ce que comprendre nga li ma wax dama doon charia donc charia c'est un tout boo xam ni soo ci deful attention mm. euh, ak tamit jaar ak nit ñi fi nga xam ne da nga war a jaar ak ñoom mm. ci wàllu yar ak éducation ak sax sur le plan social et économique et tout euh, yenn sa salam noonu la def yenn bi mm-hmm. tëbbul rek di appliquer charia li ñu tuddee charia d'ailleurs c'est-à-dire que fii li ñu tuddee charia mooy code pénal loolu benn partie bu ndaw la ci charia li ko jiitu mooy yar nit ñi mm-hmm. xamal leen mm-hmm. ba pare euh, taxawu leen ci wàll yëpp ba nga xam ni ki nga xam ne nag dafa féetarlu def kooku nag yoon dal ci kaw moo tax yonent sallam Madine mhm. benn benn nit foog naa lañ fa faat ci application charia benn nit yéen def nag dix ans ça ñu ngi doon yar nit ñi mhm. jàkka di joxe message yu positif sensibilisation et cetera donc affaire boobu nañ seetaat lan la bu baax aussi buñ joxe image yu euh, boobu ci wàllu charia comme ni ma ko waxee bu mhm. fekkee ni gox boobu dañu ne charia moo tax ñu appliqué loolu am na yeneen yu charia wax lu tax appliqué wuñ ko ku leen ko tere appliqué boo waxee tam cene ba bu fekkee loolu la pourquoi rek ñu appliqué loolu te nag na nga seetlu benn affaire aussi mm-hmm. eh, day joxe benn image bu xaw a doy waar ci wàllu jigéenu jullit mm-hmm. da mel ne jigéenu jullit rek moom mooy njaalookat boo xam ne dañ ko appliqué léegi tey ji est-ce que yow dégg nga ci dëkk boobu foofu Touba euh, foofu ñu wax noonu mm-hmm. wala ci cene ba benn góor bu ñëw ne man dama njaaloo nañ ma nañ ma nañ ma setal Euh, bu dee loolu am na est-ce que moom tam def nañ ko loolu et cetera et cetera. Hmm. loolu yëpp tam dafa am condition yu ñu koy defee ci condition familiale yëpp day joué. Hmm. ba nga xam ni par exemple bu fekkee benn waay la boo xam ne mi ngi fii ci koñ bi am njabootam yëpp nii ñëw ne damaa njaaloo ñu jàpp ko dóor ko ay doomam gis yooyu yëpp génn di jooy ñii nii et cetera donc charia dafa am nu mu koy organiser ba nga xam ni yooyu suy am dafa am procédure yoo xam ni. Hmm. dafay leer ba pare ànd ak njaaxanaay maanaam. kenn du def loolu ñu appliquer ko doomu benn kilifa def ko fa ñu génn ko réew mi mu daw et cetera donc il faut faire attention à ça moo tax affaire boobu ba fi nekk nii man maa ngi xaar su ma xamee samay wëllëre yoo xam ne mii nañ mhm. côté yooyu ñu wax ma loolu nu mu demee imam ndax ànd nga ci Sénégal fii ñu def fi loi charia bi ñu ñu exé ñu koy exécuter waaw seulement seulement xam nga lan mooy problème bi mhm. jullit mhm. sañ ta wax euh, d'accord ma ci charia boo ko waxee weddi nga ku sàcc ñu dagg sa loxo. waaw justement du loolu rek mooy charia nag d' jullit. Mhm. charia mooy lan mooy loi bi yàlla atte. Mhm. bi ballee ci alquran ci xadis sa salaam ak ulema liñ ci jëlee. Mhm. loolu mooy charia charia kon teguwul ci bànneexu bakkanu nit ñi wala invention nit ñi. loolu laa la wax ne jullit sañul wax ne contre naa loolu. kon weddi nga mooy charia. Euh, ah ben justement. moo tax ànd naa charia contre naa charia. charia dafa dépassé. Euh, boo boo boo xamul luy charia déjà nga parce que charia mooy loi mooy atte yi bàyyeekoo ci alquran. Mm-hmm. ak ci sunna yam sala salaam ak saxaaba yi li nga xam ne juboo woon nañ ci lu ñuy wax ay consensus ak yooyu donc xam-xam la droit positif mooy lan tey jii droit bi ñuy appliquer Sénégal. Mm-hmm. ba ba di ci appliquer code pénal et tout mais loolu xam-xam la. Mm-hmm. est-ce que est-ce que tey euh, citoyen mën nga wax ne dama contre le droit. kon musulman bi wax damaa contre charia loolu la wax. da ngaa contre droit islamique mën nga nekk jullit di contre droit islamique. Mm. te léegi nag ma wax la benn affaire. charia mm-hmm. loolu nga wax noonu loolu nee naan mooy code pénal code pénal boo demee tey jii ci droit positif xoolal ay ruq-ruqaat la benn karne bu ndaw mais charia ci boppam rek mooy lan. Mm. mooy justice. ak ku bëgg jël àq yelleefu jàmbur. Mm. am fu yoon jaar ak yow. Mm-hmm. mais éduquer nit ñi ci charia la bokk. jox nañu lekk naan ci charia la bokk solidarité ci la bokk julli ci la bokk euh, cadre de vie environnement. yéen sa sam ne nga romb ci mbedd bi jëlee fa loo xam ne day day day gaañ nit ñi ci charia la boobu lu tax ñu bëgg a réduire ci code pénal code pénal boobu xam ne lañ koy tuddee xudud xudud lañ ko tuddee ci fiq ma benn ruq bu ndaw la ci téere fiq yi mm. code pénal léegi loolu lañ def charia kon charia c'est un c'est un droit complet euh, jaay jënd ci biir charia la bokk mm-hmm. riba ci biir charia la bokk dégg nga loolu yëpp charia dafa englobe tous les secteurs de la vie donc comment on s'est débrouillé maintenant ba wax ne wax ni nga ni mooy mooy le code bi nga xam ni balaa ñu fee egg nit euh, mu mu def loo xam ni euh, foog yoon euh, jaarante moom man la def na dix ans Médine yooyu xam nga benn nit lañ fa dagg loxoom est-ce que sax temps yéen sasam mës nañ fa dagg loxo kenn sax d'ailleurs je me demande voilà comment se léegi nag groupe yooyu nag ay Daesh ak yu mel noonu ñooñu bu ñu jumloo nit ñi nga xam ne def yoo xam ni massacré lu nekk ci au nom de la charia Hmm. loolu taxul kon am na question yoo xam ne déjà dañ ko sax comprendrewul di ci werante di ci werante imaam dañuy dëgg ci li nga xamante ne mooy euh, euh, violence conjugale yi nga xamante ne ñu ngi koy seetlu fan yi ci réew mi euh, une semaine a ngi nii chaque jour ñu dégg benn nit boo xamante dafay dafay ñaan baat borom këram borom këram gi rey ko kooku amoon 19 ans borom kër bi faat ko ci loolu keneen kii dafa doon ñaan baat borom këram borom këram dóor ko ba gaañ ko ba mu kooku mi ngi mujjee police te ne dane du ko may baatam est-ce que loolu jaadu na nit jigéen nga takk ko war koo sàng war koo yiir nga koy def yenn yi ba mu ñaan la baat nga nga ray ko est loolu tamit euh, jaadu na. xam nga fi ma dàkkul sa question bi mooy sa de position yi ngay jël cest que yow da nga xam nga. imam góor góor xam naa peut li nga nekk jigéen li nga mais mais mais mais nga poser question rek moo moo moo gën comme ça ñun ñu mën a analyser. parce que soo nee jigéen laa moo man ma ne la góor laa ma du sotti léegi euh, xam nga boo ne par exemple nga takk jigéen di ko def yenn yi. yenn yi hmm. est yenn posel question bi daal euh, jigéen euh, lu islam wax ci may na ko ci yenn tolluwaay yi mu ñaan baat mais nag lan lañ ko def du ma ci dugg parce que jigéen day def góor di def mm. du dëgg voilà kon nag euh, léegi loolu mooy àtte bi mooy que charia bi ñu doon wax léegi mm-hmm. ma la doon wax du rek code pénal charia lan la santaane ci nu ñuy fase voilà loolu lañ respecté tul mm-hmm. procédure bi ñuy jaar pour fase charia teg na ko charia ni mu tegee fi ngay jaar ba takk labat ba takk am na tam fu mu jaar ne noonu la ñuy fase mhm. léegi lii ñi euh, respecté tuñ nii labat bi nu la neex ngay def ba dajeek benn soxna takk mhm. soxna si tam fu ko neex lay jaar ba dajeek yow nga takk euh, léegi bu ñu demee ba gis ne jubawuñ ci biir sëy bi mhm. bokkuñu jikko wala yeneen ak yeneen coow li kam fitna am euh, léegi nag procédure fase lan jur respecté mooy que nii bu fekkee ne comme kaaw jigéen boobu nga wax dafa am jigéen euh, mm-hmm. yu yu ñu faat bien sûr lu doy waar la mm-hmm. <laughs> faat bakkan moom alaa kulli xaal muy muy ci sa jabar bu la ñaan baat muy leneen xam ne li ci sariya wax léegi euh, booy ñaan baat mm-hmm. jigéen ñi tam nañu xam ne charia protégé na leen mais à condition ñoom tam ñu xam ko dund na neex ngay ñaanee baat xanaa xamoo même daal le droit positif du la neex nga ñaane baat boo jékkee-jékkee rek génn kër gi dem droit positif lu ñuy wax nu koy tuddee xam nga loolu abandon voilà mhm. ça veut dire que du la neex nga génne sa kër de mhm. ah, voilà charia tam loolu la wax kon tamit jigéen bi boo amee lu ko naqari tamit dafa am fu mu war a jaar doo poñe sa jëkkër nii rek taxaw ne ko may ma baat tey dëmb nga nangam naa ngeen baal ma wax bi mhm. kooku tamit mer dóor la wala jam la donc il faut faire attention donc bu dee ci charia la d'abord ñàkk jubóo bu amee ñaar ñi way dencante ñi war nañ toog waxtaan ci te yàlla tax parce que la ngeen bëggante woon ba dugg ci sëy kon war ngeen mën a toog léegi euh, natt seen bopp waxtaan su ngeen jubóowul ngeen dugal ci kilifa yi lu charia wax médiation nii mm-hmm. laa lay wax ci taaru charia kon buñ ma indil charia rek ay dóor yi damm mm-hmm. kott nit non donc ngeen waxtaan sincèrement d'abord yéen ñaar du yéen ñaar a bëggante woon mm-hmm. kenn forcé wu leen ngeen dugg même bu leen forcé woon tamit ngeen dugg ngeen waxtaan yéen ñaar su ngeen jubóowul ngeen woo kilifa yi ñu toog ndaw si toog waa ji toog ñu waxante après mën na defaru suñu jubóowul euh, ku jigéen ki comme ku góor ki am na droit ku góor ki am na droit ne dama koy wàcc ku jigéen ki am na droit ne damay ñaan baat mais boobaa tamit ku jigéen ki ci ay kilifaam lay dem mm-hmm. ne leen dama koy ñaan baat et cetera loolu la jigéen ñu bari defatul ñun ay imaam lañ dañu koy wax da gis ma jigéen bu ma woo dégg nga wax ma waaw imaam naa naam une heure de temps cinq dernières minutes yi ci laay découvrir li mu def moom <laughs> ak li mu wax fee jigéen cinq dernières minutes yi ci une de temps la may wax ne waa man ngaa d' accord sax c' est vrai que woo téléphone ma ne ko nangam naa <laughs> bon donc procédure dañ ko respecté jigéen kenn takkoolu ci mbedd mi mm-hmm. donc bu fekkee ni bëgg nga ñaan baat demal ci say kilifa ñu gis kilifa waa ji ne leen na yeewi suñ doom parce que ñun ñoo ko mayoon suñ doom nee na bëggul sëy bi loolu déjà xam nga lan lay permettre mm-hmm. day tax waa yi xam ne bàyyiwuñ kook ndaw si mais bu fekkee nii di naan ataayam di seetaan teleem ndaw dugg ci salle bi yow laay waxanteel danga may may sa mbaat tey mu neex la mu naqari la <laughs> du ko dugal am ci bëtam kooku nekk waaju tàng mm. jóg dóor ko wala dara yii mën na ci am kon kon nañu xam ne procédure lañ dul mm. respecté mooy indi loolu mm. jikko dafa am moo tax procédure am kon nag euh, xaw ma détails yooyu parce que du ma enquêteur mais euh, bu ci nekk rek da ngay sentir ne dafa mel ne ndaw si elle était ba waa ji jot koo dóor wala rey ko alors que booy ñaan baat sa jëkkër am na procédure yooyu jaar say kilifa wax ak moom ah famille itam ñu ci bëri léegi dañoo abandonné. Mm. seen njaboot euh, surtout bu dee ko jigéen ki la euh, des fois dana ñëw joytu lu bëree bëri ñu ne ko toogal rek muñ. Mm-hmm. mais ala kulli xaal sa njaboot tamit loo ko wax toogal toogal muñ bu demee ba nga xam ne nag buggatul dara ci sëy bi li charia wax mooy. kon tamit ñu accompagner ko ci décision bi mu bëgg mais kenn du ko forcer décision dama chaque fois ay nit dañ may woo des fois ay jigéen souvent dama leen di wax loolu. attention mm. benn imam amul droit wax la ñaanal baat sa jëkkër. Mm. wàcceel sa soxna mais xam nga imaam fu mu mën a yem ak yow. mooy bu dee lii la li nga wax man attention bu dee nii la demee ii <laughs> attention ne nit ñi bu dee nii la demee ah. Mm. am nga droit ñaan baat wala am nga droit wàcc sa soxna am nga droit. décision bi nag yaa ko jël bul dem na nga ne imaam Kanté nee na naa wàcc sama soxna parce que naa <laughs> wala imaam Kanté nee na naa ñaan baat sama jëkkër kon procédure bi comme ni ma la ko waxee déjà même coow bu amee dem leen dem leen par exemple ci imaam man jigéen euh, woo na jëkkëram fi ñu ñëw ba ci man ñu toog ñu waxtaan réglé et cetera kon médiation yooyu duñ ko def ku nekk jaay sa moroom fit ak euh, sa sa wane sa bopp après violence ñëw kon nag nañu xoolaat la procédure nañu xoolaat aussi l' implication des autorités de la famille de part et d'autre góor ñi tamit nañ ànd ak tam seen sago. Mm-hmm. parce que euh, jigéen bu demee ba ñaan la baat pour man wax dëgg yàlla boo moccee mocc mocc mocc mu bañ ba mu jaral ko yenn yi may ko baatam te yàlla tax yàlla dina la may soxna su ko gën sax bu fekkee nii bu fekkee ni li nga def yàlla tax te it tooñoo mu mel ni imam loolu dafa bëri ndax rayante bi bëri na saaga yi xale yi góor yi xale yi ñu ngi nekk ci eh, réseaux sociaux yi di saagante. Hmm.

waxuma la nag sëriñ wala imam kon nag àdduna euh, bi moo dof fi mu nekk nii dafa mel ne tamit nit ñi dañoo nekkoon en manque de communication ba léegi communication am rek ku nekk ne xaaral ma wane sama bopp wax lu ma bëgg mm. mais loolu parents yi nañ jëlaat seen responsabilité yar seeni doom parce que ñoo ñu nekk ci réseaux sociaux yi mm. koo ci gis tamit am na kër gu mu nekk mm-hmm. kër googu yenn valeur lañ ko transmettre wala yenn valeur lañ ko transmettrewul bëri na tam léegi parents yoo xam ni dem wuti rek la ñuy def maanaam dañuy xont seen njaboot mais yaruñ leen mm-hmm. donc parents yi ñoo war a njëkk a jël seen responsabilité parentale ci éducation mm-hmm. euh, xale yi assi les institutions d'éducation jël tam le relais parce que parent yi léegi temps bu ndaw la ñuy passé ak seen doom ndax fa ñuy dem école wala daara wala feneen ña nekk foofu tam nañ gën a yar xale yi fi ñuy gën a def temps ak fépp foo xam ne xale yi dañu fa dem par exemple dans les milieux sportifs je trouve que les messages d'éducation euh, bariwul quoi dañuy gën a yóbbu xale yi ci performance compét baax na mm-hmm. nañ dugal tamit de message d'éducation ah à la citoyenneté et cetera et euh, léegi nag loolu su amee kon éducation sensibilisation mais en même temps pour man troisième pilier bi troisième levier bi mooy lan mooy quand même loi. Mm-hmm. koo xam ni tamit nag yaa ngi saaga nit ñi teg ko ci lu la neex. Mm-hmm. war nañ jaar ak yow ci yoon ba nga xam ni moomoo nit ñi. Mm-hmm. du la neex ngay def ci deru nit ñi euh, wala ci seen alal. wala ci seen njaboot et donc trois leviers yooyu c'est important éducation sensibilisation même ñun ñi imam yi ñi am discours public am ay mbooloo yu leen déglu ko ci imam yi nii nañu gën a ci yooyu mm-hmm. ci xutba yi mais mm-hmm. mënuloo tout le temps rek xutba rek nu ñuy jullee tàkkusaan nu ñuy takkee mm-hmm. valeur yi ah, léegi <laughs> ah, ñu topp gars kurum kurum alors euh, il faut il faut faire attention à à ce déclin euh, des valeur là bi ñuy observer ci mm. réseaux sociaux yi mais en même temps aussi man je me dis il faut pas hésiter koo xam ni tooñ na la di la fonto nga identifier ko yóbbu ko ci yoon. dafa mel ni Macky Sall daal dinay jug ci def na ci ay dogal jëm ci loolu. Mm-hmm. loolu lu baax la. wax na ko fii. loolu lu baax la. Imaam sa dernier mot. sant yàlla rek di leen saragal ci seen euh, liggéey bi lii tam day participer ci. luy luy luy defar réew mi parce que mhm. lu ñuy waxtaanee problème réew mi mhm. euh, analyser ko kon nag ñu leen ci sargal du liggéey bu yomb mhm. euh, ay partenaires lañ da ni indi ay question société bi ñun tam ñu wax ci lu ñu yaakaar ne euh, day defar ça pas dire que ñu li ñuy wax yëpp tam noonu la man souvent loolu laay wax je de détiens pas la vérité mais je dis ce que je pense être la vérité te yaakaar naa teg naa ko ci Euh, xam-xam ku gis lu gën a wér lu gën a dëgër nga wax ko. Mm. loolu yëpp euh, dana baax ci réew mi kon euh, à la prochaine incha allah. merci beaucoup ñu ngi jaajëfal ki nga xamante ne mooy Imam Kanté sonal nañ ko sonal naa ko démb ba tey <laughs> may ma ko dara waaw démb surtout que fan yi dama saturé woon complètement sonal naa la kay maa ngi fan yi dama saturé woon. mais bon noonu la tous les jours noonu kontaan vraiment euh, kontaan nañ bu baax a baax a baax ci recevoir bi merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax euh, mbokk yi doon seetaan Public TV moom lañ leen indiloon tey muy Imam Kanté yaakaar naan comme ni mu ko waxee rek lépp lu mu fi wax rek euh, am na njariñ loo xamante ni buñ ko dégloo wala boo xamante ni buñ ko suivre dinañ ci dinañ teg suñu tànk foo xamante ni fu baax la ba tax na maa ngi di jox digg daja beneen yoon ci beneen invité